بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة نهنيكم على ما وفقنا الله سبحانه من صيام شهر رمضان المبارك وندعو الله سبحانه أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يديمنا على ما كنا نقوم به من الأعمال الصالحة خلال هذا الشهر المبارك وأن يزيدنا بعدا من العثرات أيها الإخوة إن انتهاء هذا الشهر المبارك لا يعني انتهاء وقت, وقت الأعمال الصالحة ولا يعني أن الأبواب مفتوحة والنفوس مطلقة فما سالت الأوامر طرق الجنان والمناهي طرق النيران fal najtahid fi ittibaahi al-awaamir wa ijtinaabi nawaahi wa min hikami seyxi alxadim radiyallahu taala anhu wa arda xawluhu irtaxiloo xabla lirtixaal wa ansiloo xabla almanaasil irtaxiloo an ilmanaaxi wa ansiloo fi lawamiri ba xabla nusuulikum alxubuur wa in raayta xayran falyaqudka ila llaahi bi fihli lxayri wa in raayta sayiatan faltaqudka ila llaahi bi tawbatin minha takfiika maa yuaddi ila nnaar ayyuha al ixwa inna allaha subhanahu wa taala xad xalaqa al insaana wa sawwadahu bi adawaati taati walmaxsiya wa mayyesa lahu baynahuma wa mataahu bi nicmati tawbati wa raqabahu ala sukr fa tawbatu tamxu kulla ma yudxilu nnaar yaqulu subhana yubaddillahu sayi'aatihim xasanaat wa sukru yasidu kulla ma yudxilu janna yaqulu subhana la in sakartum la asidanakum allahuma waffiq allahuma waffiqna bi tawbati laka baada almaasiya wa sukri laka baada ni baada fii lil xayr mbokk yi ginnaaw bi ñu jullee ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan di ko tàllal suñu loxo di ko ñaan li nga xam ne moo nu moom rek moo ci am pexe muy suñu borom yàlla nañu ko seppil ci àdduna sépp ba delloo nu ci li nga xam ne moom lañ miinoo miine woon miinoo woon ak ba baaxoo woon ko loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu defal itam ci kàttanam ak maanaam ak ak ak ak xerañam ba seex Mouhamadou Mountakha mii nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te nekkal fi lislaam suñ borom gën koo dëgëral gën koo may ak kattan ak wér ak tal ba gën ko fi yàggal ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci yoonay lislaam bi ak ci ak ci yoonu Serigne Touba yi mu def ko ci definu kawe njortam te suñ borom defal nu kattan ñun itam ak man akuk nangu ba li nga ba ba li nga xam ne moom la ko suñ borom di faye ëllëg ñu bokk ca yal nañ ko suñ borom defal loolu mën na ko jàpp na ko yal ko defal. yal na ko defal itam képp koo xam ne yaa ngi jóg sa jéego yëpp di lislaam sa taxawaay yëpp di lislaam yal na suñu borom kàttanal defal la man akuk tal ba li nga xam ne yéene nga ko ci lislaam nga def ko defin wu koy sa njot ginnaaw loolu nag ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd yi nga xam ne moom lañu génn muy weeru koor wi muy weer woo xam ne dafa ñëw te ba muy ñëw indiwaale sërite yu baree baree bare ma yaakaar ne nag képp koo xam ne gan képp képp xam ne am nga gan goo xam ne buy ñëw ci yow dafa lay indiwaaleel sërite yoo xam ne yu duuna duun la te buy dem itam am lu mu la bàyyee kooku yaakaar naa googu gan la nga xam ne moo ko taxawoon a jóg waroo ko fàtte mukk li nga xam ne itam moo tax moom la bëggoon ci yow war nga koy bàyyi xel bu baax a baax te xam nañ ne li nga xam ne mooy gan googu xéewal yi nga xam ne moom la ñu àndaaleel te ñu tuddoon ko ci te tuddoon ci yu bari ginnaaw àjjuma jee weesu muy doon jëf joo xam ne suñ borom moo waxal boppam ne moo koy fayal boppam du yónni kenn du bàyyi kenn mu fay ko waaye moom mooy ki nga xam ne moo ne mooy ram mooy weer wi nga xam ne boo ko taxawee lépp loo xam ne def nga ko ci ay njag càggante ci ginnaaw weer woowu suñ borom dana ko jéggal ba keroog weer wa di ñëwaat wax nu itam ne mooy weer wi nga xam ne alxuraan dañu ci ràmm ñàkk xiif gi nga xam ndax day wax suñ borom ne ko day kii nga xam ne mooy jullit bi day taxew bàyyi woon na ma xel bu baax a baax ci guddi gu weeru koor ndax doon na ma jàng bàyyi ay nelawam bàyyi noflaay ba nga xam ne moom la nekkoon ngir rek di ma jàng kon nag maa ngi lay ñaan suñu borom nga tin ma ci kii te nee na suñ borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam le ne su su alxuraan tinoo jullit suñ borom dana ko jéggal kon nag ñu xam ne tinu kon mel na ni buñ ko dee génne ci wala ñuy wax ne kenn mënu ko kon jëfa ngi nii joo xam ne yaa ko defal sa bopp te taxaw na tiidu la kon rawatina nag keneen ku mën a doon loolu nag di ñu woon ne kon weer law tedd woo xam ne ba muy dem itam li nga xam ne mooy doyadi yi ak matadi yi nga xam ne mën nañ koo def ci biir koor gi mu bàyyeenu loo xam ne moo nuy raxasal matat matadi googee ak doyadi googee ci biir koor gi loolu lépp doon ay xéewal yoo xam ne kon weer wi indiwaali na ko kon nag li nga xam ne moo ko taxaw na jóg muy li nga xam ne moom la suñu borom leeral muy yaa ayyuha allazina amanu kutiba aleykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqoon muy li ko taxaw na jóg muy bëgg dëgërël rek ragal yàlla ci suñu biir bëgg dëgërël li nga xam ne mooy suñu yóbbal ëllëg te yóbbal bi nga xam ne mooy yóbbal bi ëpp solo muy wa tasawwadu fa inna xayra zaadi taqwa kon mu mel ni fañ jëm ëllëg li nga xam ne moo yóbbal ba nga xam ne moo fa ëpp solo te moom lay suñu borom xamal ne mooy yóbbal bi am solo moo di mooy ragal yàlla kon koor moomu dafa ñëw ngir bëgg noo bëgg jëmbat li nga xam ne mooy ragal yàlla ci suñu xol ngir yóbbal boobee nga xam ne moom la ñuy yóbbu ñu man koo am ci amin wu rafet ba bu buñ demee ba ëllëgee itam ñu dajeeg suñu borom ci li nga xam ne dël nañu ko ci ay pay ak ak ak xéewal kon kooku weer wutool noonu nag bu la ñëwalee ñi nga xam ne mooy nit ñu baax ñi bu leen mas a ñëwal duñ bëgg mu tàggook ñoom mukk dañuy bëgg rek mu doon seen gan goo xam ne day dëkkoog ñoom comme ni nga xam ne moom lañ ko su moom la ko Sëriñ Tuubaa waxee ne laa silta laa sitta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xirat sa bi xirat taaati wa sadadi su ma sañoon de yow weer wii doo ma tàgg mukk doo tàgg doo dem mukk da ngay sax rek wax waxtu nekk di gan di doon sama gan ndax nee na loo yàgg-yàgg man xam naa li ma lay terale xam naa li nga xam ne itam mooy lépp booy sa bëgg-bëgg te sa bëgg-bëgg mooy jaamu ay jaamu yàlla ak itam sax ci lu baax loolu rekk mooy sa bëgg-bëgg kon loo yàgg-yàgg du tax ma yokkat ci sa gan kon mu doon loo xam ne kon bu bu fekkee ne ñëw nañu ba tàggunu waruñoo bàyyi rek gan gu la goo xam ne ñëwal na andil la xéewal yu toll noonu ba muy dem itam mu bàyyee la xéewal kon gan gu toll noonu yaakaar naa waroo koo fàtte bu la wonee ginnaaw rek nga fàtte ne gan gi mas na fay ñëw fàtte itam li nga xam ne moom la bëggoon ci yow fàtte itam li nga xam ne moo ko taxaw na jóg ngir ci muy xam nañ ne waxtu weeru koor dafa doon waxtu woo xam ne jaamu yàlla daf ci rëy waxtu daf ciy rëy lool mooy yàlla itam doon lu ci rëy jaamu yàlla ci keeru weeru koor rek lañ koy def tekkiwul itam ne mooy yàlla ci weeru koor rek lañ ko war a mattandiku ni nga xam ne dañu war a góorgóorloo ci def lu baax nañ koy jéem a def waxtu wu nekk ni ñi nga xam ne itam mooy mattandiku li nga xam ne moom la borom tere nañ koy def waxtu wu nekk ndax loolu mooy li nga xam ne moo nuy jariñ te mooy li nga xam ne itam mooy teg ne jàng yi jàngat yi nga xam ne moom lay weeru koor ñëwoon ngir jàngal nu ko bàyyi nañ ko xel ndax teraanga juree ji nga xam ne moom la ñu indil ak li nga xam ne moom la ñu bàyyee mu mel ni nag Sëriñ Tuubaa moom dafa noo xamal ne nit ki dafa am loo xam ne da ko war a bàyyi xel moo di ne daa wax gër dafa war a góor góorgóorlu ba fas yéene tuxal boppam njëkk ñu koy tuxal fas yéene itam dëkkal boppam bala ñu koo yóbbu bala ñu koo yóbbu ci bala ñu koo dëkkal ndax xam nga ne dë tuxal sa bopp yow yaa koy def ci sa sago waaye tuxal la nag doo ko def ci sa sago tuxal sa bopp nag mooy nee na nañ tuxal suñ bopp jëmee ko ci jëmee ko ci topp ndigal yi suñ borom yi nañ nañ dëkkal suñ bopp nañ maanaam nañ tuxal suñ bopp ci ci li nga xam ne moom la suñ borom tere nañ fa tuxal nañ ci tuxal suñ bopp ci suñu suñ coobare ak suñu man njëkk gi nga xam ne suñ borom dana ñëw tuxal nu ta bu boobaa du doon loo xam ne suñ kàttan lay doon du doon loo xam ne suñ man-man lay doon nañ nañ dëkk itam ci dañ dëkkal suñ bopp itam foo xam ne njëkk ñuy dëkkal foo xam ne buñ ñu fa yóbbu ñu fa suñ kàttan du ca man dara suñ am am du ca man dara suñ xam-xam du ca man dara ñu ñu fas yéene dëkkal suñu bopp fu ñuy dëkkal suñu bopp nag nee na nañ dëkkal suñ bopp ci ndigal yi nga xam ne moom la suñ borom digle fas yéen njëkk suñ borom di ñu jële fii ci adduna ngi yi nga xam ne duñ fi dëkk dañ fay romb rek di jàll mu ne adduna si nga nekk adduna si nag boo fi nekkee ñaari mbir rek mooy jaar ci sa kanam lu baax ak lu bon nee na lu baax nag bu la rombee nee na bàyyi ko bàyyi mu dem rek fas yéene caa jariñu nan nga caa jariñoo mooy fas yéene koo def nee na bu la lu bon rombee itam fas yéene cee jariñoo ndax ñoom ñaar yëpp am na njariñ nee na lu baax li ni nga ciy ni nga ciy jariñoo mooy fas yéene koo def lu bon ni ni nga koy ji ni nga ciy jariñoo mooy jégglu suñ borom ci loolee ngir loolu mooy li nga xam ne moo lay musul ci bon bon ya mu xamal ni mu suñ borom nag xamal doon koo xam ne doomu aadama defal na ko xéewal gune defal na ko ak jàppandal gune ndax njëkk mu koy mu koy sadd da koo jox xel jox ko kattan jox ko man-man waaye bàyyiwu ko xelam bàyyiwu ko kattanam bàyyiwu ko man-manam da ko caa tegal andil ko koo xam ne kam xam-xamam boobee ak man-manam boobee ak am amam boobee da koy day xam fu mu koy jaarale ak fu mu koy dugal boobu bu ëllëgee mu mën caa jariñu ni nga xam ni la ca war a jariñoo mu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw ngir wax wannu suñ kàttan nan lañ ciy jariñoo bu ëllëgee ak suñ man-man nan lañ ciy jariñoo bu ëllëgee ak li nga xam ne mooy suñ am am bu nan lañ ciy jariñoo mu jox nu bunt wannu bunt yi nga xam ne moo nuy dimbalee ñu xam nga xam ne fi lañ war a jariñoo suñu kàttan xamal nu itam li nga xam ne moo nuy fan lañ war a jariñoo suñ man-man xam nañu itam fan lañ war a jariñoo suñ suñu am am loola nag suñ boroom ba mu defee loolu ba nopp itam dañoo xamal ne lii day lu baax la lii day lu bon la lu ban lii nag moom fu bon rek la lay jëmale lu baax lii itam fu baax fa rekk la lay jëmale kon bi nga xamee ne won nañu ne lu baax fii la ñuy jëmale lu bon itam fii la ñuy jëmale ba tey loolu ndimbalu suñ borom la kon mu mel ni boo nekkee ci lu baax li nga xam ne moo lay dimbale ngir gën jaa sax mooy ngay sant suñ borom li boo nekkee ci lu bon itam li nga xam ne moo lay ciy musal mooy nga dellu tuubal tuubal suñ borom ndax suñ borom mooy ki nga xam ne moo nu xamal ne képp koo xam ne sant nga ko dalay dana la yokkal ak dana la yokkal ci li nga xam ne moom nga moom nga ko doon sante defal la ci lu kawe sa njot te kon boo nekkee di jaamu yàlla bul di bu ko jàppee lenn lu dul ne lii kat suñ borom a ko defal kon li ma li ma defal nag naa ko ci sant boo nekkee ci safaan itam nga xam ne suñ borom nga xam ne sa kàttana nga xam ne sa doyadi doomu aadama moo la ci yóbbu nga xam ne suñ borom wutal na la bunt boo xam ne itam sa doyadi googee am na lu ko mën a far muy tuub kon nañ sax ci tuub ak di sant suñ borom ndax ñaar yooyu mooy yi nga xam ne moo nuy dimbale ci dina nekk ci lu baax benn bi mooy li nga xam ne moo nuy dimbale ci ñu mucc ci li nga xam ne mooy lu bon yow suñ borom mi nga xam ne nag mooy borom kattan te mooy borom man yàlla nañu dimbale ba waxtu woo xamee ne def nañ lu baax ñu sant ko dimbale ñu itam ba waxtu woo xamee ne def nañ ab safaan ñu jéggalu ko loolu suñu borom mën na ko te yàlla nañu dimbale itam ba jàpp suñuy loxo dimbale ñu ci jàpp suñu loxo yóbbu ñu ci topp ko dimbaleenu ba tey ba tëye suñuy ba duñ def loo xam ne doonul lu ko neex loolu suñ borom mën na ko yàlla nañ ko defar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al allah astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayu alqayum wa atubu wa natubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsi darran wala nafan wala mawtan wala hayatan wala nusura subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin